voilà bu nekkoon suñu dernière musique du jour eh, ñu àndoon ci rek ak Mbaye Dieye fay ci eh, wéyam boobu rek di eh, raas ah. ma koy may nag ancien ah, yëpp di ko may ki nga xamante ne rétro moo koy dundal <laughs> Aline Gueye tant que tegaloo ko rétro rek du kontaan j'espère que tey kontaan na ci mën ah. am na si ñoo xam ne moom wax dëgg neex yàlla dañoo bàyyi caméra yi rek daal di dem mais comprendre naa leen ah <laughs> amul benn souci voilà donc comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure tey jeudi on va parler euh, politique donc euh, pour loolu nag dañuy dalal suñu invité tey di euh, Ndeye Sow Leila nekk présidente mouvement liggéeyal Sénégal donc Aliou dama la bàyyi nga dalal suñu ganu tey rek ñu daal di tàmbale waxtaan bi. si Fatou wax nga ko tey ñuy dalal euh, Ndeye Sow Leila nekk présidente mouvement liggéeyal Sénégal bokkoon ci list coalition bii di bunt bi Ndeye Sow Leila ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm suñu plateau. maa ngi leen di fay di am kontaan di dal fii. c'est c'est un plaisir de passer ci ce plateau di nuyu jigéen yu rafet yi <laughs> macha allah xam nga li ma gars yi di tooñ naan féministe la waaw leen bu nekkee faral jigéen yi mooy tax mais kontaan naa ñoo fekk fi deux ah, jigéen benn góor kese ah <laughs> jigéen la de jamono ji moom yéen a yéen a ñun ñoo àgg yéen a waaw ñu wax ci élection yi mhm. bunt bi coalition bunt bi ci élection yooyu mhm. amul benn député yéen nan ngeen jàngatee résultat yooyu ah je pense que loo gis rek conséquence la en fait conséquence des des actes wala des faits wala de la personne morale bi nga xam ne moo taxawaloon bunt bi euh, comme li may wax dafa am séparation il y a il le parti Union Citoyenne bunt bi et il y bunt bi coalition. Euh, je pense que coalition la boo xam ne Ibrahima Mbow daf ko taxawaloon pour euh, les élections législatives moo am ay quelques partis et mouvements ak euh, société association yi. yu ñëw bokk ci mais comme que dem nañ ba ci biir gisuñu suñu bopp parce que euh, li ñu gisoon daal mooy waa ji dafay utiliser nit ñi par rapport ak seen parrainage il avait besoin de parrainage et quand il a besoin de parrainage yu nit ñi jaamu na soxlaam ba am yëfam bi parrainage yi jàllee amoo jàll élection mu jàll parrainage sànni na nit ñi noonu lañ ko mën a waxee parce que mën nañ ne bi parrainage yi am je me rappelle benn jour wax naa xaw ma lu ma leen doon wax ma ne leen mais ñun du ñu wax xaw ma la ñu ne ma non non il faut pas qu'on parce que euh, les gens ne vont pas amener leur parrainage déjà c'était c'était c'était de mauvaise foi. mbaa loolu moo tax ngeen ndërmeel ci élection yi. non ndërmeelu je peux pas dire ça parce que man mu nekkuma tuma woon ak ñoom demuñu parce que dañoo ragal ne du ñu am dara parce que euh, li sama papa Pape Diop di wax ne ñàkk dem élection euh, perte du gàcce ñàkk dem mooy mooy gàcce. ñàkk dem xare ji mooy gàcce mais pas pas pas non man je peux pas parce que nekkatuma fa j'ai pas mon mot à dire je ne ci on a même de campagne def na yéen déggoo leen ñu fenn amoon leen suñu image fenn voilà par rapport à tout ça cinq organisations à six on ont quitté euh, ont quitté le navire parce que pour man Euh, une campagne électorale c'est une campagne électorale dem ci nit ñi de porte à porte waxtaan ak nit ñi mais boo demee ba yow sa organisation moo dem fekk ji euh, pour mën a créer taxawal bunt bi euh, coalition bunt bi <laughs> ñu demee gisatuñ ko je pense que euh, da ngay génn au fait. léegi ñu ñëw ci résultat élection yi gis nañ ni jamono ji ñuy wax waxu cohabitation parce que bi résultat yi génnee benn muy am 82 députés. Mhm. intercoalition Yewwi Wallu am 80 Pape Djibril Fall na Alassane Sall ak Pape Diop ku nekk am 3 maanaam ba ñoom ñett bu ñu boolee. ça fait 83 je donc. bu ñu demee fecc fekk ji intercoalition yeeyu wàllu day nekk 83 députés mu nekk mm-hmm. euh, majorité. Mm-hmm. ñoom maanaam boo on parle de cohabitation. Mm-hmm. yow na nga ko jàngatee. 83 euh, députés bu ñu koy wax dafay yombu torop xam nga euh, président Pape Diop je pense que si c'était avec le président Wade il pourrait travailler ak moom mais je pense pas que mu liggéey ak Karim Wade parce que. kon jàpp ni Pape ni sama papa. colonel Malick Cissé nem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ñu daan wax naan ndey dama sonn ci oui monsieur oui madame am na âge boo xam ne boo fa tolloo nekkatoo pour oui monsieur wala oui madame da ngay dem sa yoonu bopp li ma wax sànq ne Pape Diop il n'a plus rien à prouver Pape Diop lan la ñuy prouver ti Pape lan la nam lan la fi liggéeyu loolu Sénégal lu sénégalais mun lan la lan lañu amul lu ñu mënta teg suñu loxo ne lii président Pape Diop moo ko def. jàpp dafay def ci nguur gi. bu kon man c'est son choix gis nga nit munoo munoo munoo wax sa gént wax sa gént moo ko munoo def say choix di wax keneen bu mu def ay choix il a le droit d'aller avec Macky il a le droit d'aller avec Sonko il a le droit d'aller avec Karim Wade ça son choix à lui pour man il n'a plus rien à li mu war a jox Sénégalais jox na leen ko desalatuñu dara bërki démb campagne la def jël àddinay xaalisam def ci ànd ak ay nit dimbali leen mënoon na xool ni ñii ils sont eu ministre wala ils ont eu à am ay nombre tànk xoolu loolu dafa jël alalam yëpp ko ci boo amoon loo koy conseil ki la yaa qu'à choisir audio bi ma ko yónnee léegi ngi nii mën son choix à lui je lui dis i il n'a plus rien à prouver et en plus c'est pas c'est pas le président Pape Diop mooy topp ci ginnaaw benn Sonko wala ci benn ginnaaw Déthié Fall wala je pense benn ginnaaw Karim Wade pour ne ko oui monsieur oui madame. kon yaa ngi jox exclusivité ah. non non non non non loolu moom leeruma ma ah. awma ci dara lu ma wóor gën naa koo dégg yàgg na mais man li may wax man si sama analyse personnelle mu concerne man madame Ndeye Sow que pour man président Pape Diop n'a plus rien à prouver alors donc il a euh, rapporté ce qu'il a eu à rapporter au Sénégal liggéey na fi bàyyi na fi trace kon leneen lu mu def bénéfice la c'est sa vie à lui maintenant de de voilà quoi, de faire son choix, de, de faire son choix quoi. et c'est pas la depuis lors j'ai vu il y a de la triche quoi parce que depuis lors yaa ngi dégg ku nekk bëgg koo orienté orienté boppam ñi ko fi doon xas bërki dem ñi ngi koy bàpp pour mu ñëw ci moom ba ci même yéen le travail de l'opposition <laughs> genre que yéen a la yéen a koy ban chemin prendre. non non non journaliste bi Pape Djibril Fall que ce soit Thierno Alassane Sall que ce soit président Pape Diop. Mhm. on leur montre que le chemin c'est pas euh, la coalition Baby c'est l'opposition mais il faut laisser les gens. faire le choix comme ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko sentiree. <laughs> voilà comme ni nga ko waxee ah. man mhm. je pense que côté boobu noonu. yow ak euh, journaliste yi yéen a si yem ah. kenn mënu ko wax ni nii ngay def. wala lii moo gën. déjà yàgg na ci politique xam na lu mu bëgg et je pense que moom mooy la meilleure personne pour mën a def. da ngeen di jàppale opposition bi leen ko. non non non parce wax ne non il est là il est pas là partir il doit pas faire comme ça. ah tey bu ñu ko Aliou tey bu ñu doon jàppale opposition bi daa ni ñeneen ñoo fiy toog tey ah donc ñun on est <laughs> vraiment neutre et li important ci ñun mooy suñu liggéeyam ah. mais sans parti prise vraiment. donc man fi ma bëgg a ñëw empêcher par rapport ak euh, ce mouvement bi nga xamante ni mooy mm-hmm. liggéeyal Sénégal. Mm-hmm. donc mën nañu xam quand même lan moo ko motiver est-ce que da nga sentir ni y a des manquements yoo xam ne war ngeen ko euh, vraiment combler wala le fait que da nga gis lu la neexul ci euh, bunt bi nga génn. maanaam pour rek mën a indi ay solution paliativa sax ça. en fait euh, le le mouvement Sénégal on va on va on va même en partie ñu ngi ñu ngi pare defar suñu benn partie F2 debout. Euh, euh, li ñu poussé pour ñu def dugg déjà je veux dire que pourquoi on est rentré dans la politique je pense que li may wax jeunes yi ñi nekk université yi ñi nekk ci école yi ne leen nañu jàng te xam ne politique du métier <laughs> du parce que léegi c'est dafa nekk phénomène au fait euh, bien longtemps mais dafa gën a empirer fi ñu toll nii mais ñun bi ñu koy def c'était pas passion euh, on se posait des questions des fois dañ daan gis gaaw euh, kii bi état bi rayante rayante des fois nga dem euh, régal fekk leen fa ñoom bëccëg bi da leen gis ci télé bi il se truc euh, il se truc le chignon et tout nga dem régal fekk ñu toog di naan seen café ci tu dis que mais ñii lañu gis la sànq ci télé bi wala ñii la ñuy gis ñuy politique di xeex alors que après ils vont faire ça ak des manquements aussi nga nekk jeune tu grandis avec ça tu vois que par exemple moi j'ai presque grandi à Grand Yoff la dernière fois dañ ma invité ci benn plateau j'ai parlé de Grand Yoff et j'ai posé la question à une de mes co-débatteurs ma ne ko yow lu tax yéen ngeen wax ñu waxaat leen jox réew mi parce que ki fi nekk xam nañ li mu mën ak li mu mënut mais ñi yéen ñi demoon ñu jëlee leen fii ngeen bëgg a ñëwaat lan ngeen ñu bëgg indil parce que pour les la cas de Khalifa Sall euh, on habite à Grand Yoff <laughs> Grand Yoff nga am ndox ba tey inondation yi yàgg na fi bi ñu juddoo ba tey ji dañ ko fee fekk kon yéen boo leen ñëwaatee lan ngeen di indi les gens ñëpp dañoo dal sama kaw ne lu tax ngay wax ma ne leen man dama dëkk Grand Yoff màggee Grand Yoff ba tey nii may waxee yow y a kër yu inondé par rapport a tout ça ça nous a donné euh, truc boo ñu dugg ci politique bi pas pour se crêper le chignon wala xeex a kii wala wax nit ki lu ko naqari mais dañuy wax li ñuy xalaat te wax li ñu xalaat ak ñu ko bëggee waxee ak ñu ko bëgg a defee daf ñu pousser ba euh, chaque fois de gens t'appellent pour te dire yow dafa mel ne ci pouvoir bi nga bokk keneen wala ne yow da nga war a bàyyi sa façon en Euh, voilà mi ngi noonu daal c'est c'est c'est c'est une envie. c'est c'est voilà taxawal ko. nekk jigéen aussi parce que gis nañ jigéen yi bëriwuñu ci biir langue politique bi. Mm. te buñ ci bëree ñu ngi leen xeex. te sama genre dañ ciy baax léeg-léeg. foofu laay ñëwee sax par rapport euh, jigéen si biir politique gis nañu am na domaine yoo xam ne bu si jigéen nekkee da si sonn day am yenn inconvénient par rapport ak moom noonu la dundee tey yéen si politique bi en tant que jigéen pour ngeen démarqué wu marqué seen place ak seen empreinte. moi je le vis mal je le vis pas personnellement mal mais xam naa ne ñi ngi may dañ may xatal daal man xam naa loolu des fois da nekk ci coalition. yow kese yaa fay nekk jigéen ci coalition mais dafay mel ne yow fukki jigéen nga wala yow da nga mën lu ñooñu mënut wala da nga leen di jël seen place dañuy jiiroo ak yo tu sens même pas que euh, ñi ngi lay wane bon yow jigéen nga on va te faire y a pas de caresse man si yi ma tombel coalition bi ma tombel parce que maa ngi nekkoon jot na euh, je pense que c'est ma première coalition où aux législatives on était dans une autre coalition en 2017 on a fait les législatives 2017 mais bii coalition bi ñu dëgg du njëkk a dugg mooy la coalition Jotna avec Sonko. Mm. Euh, bi ñu soog bi may soogee egsi j'étais la seule femme de cette coalition là parce que xam naa bi Sonko di soog a ñëw ñu jigéen ñu bëri ma jigéen ñi la plupart fu dara amul duñ fa nekk. dangay wax ak ni sax ñu ne la yow looy ut foofu wala lii wala lii wala lii mais maintenant tu vois les gens qui te lan ngay ut ci Ousmane Sonko ce sont ces gens là maintenant ñooy utiliser Ousmane Sonko pour di ànd ak moom à leur mais euh, on est fatigué par rapport à ça parce que xaw ma dañuy ragal. xaw ma ñun dañoo mën ñoom lu ñu mënul wala dañuy def lu ñu man daal comprendre ma mais coono yi neen la ah. ils reconnaissent pas ta euh, parité ah boo ko nangoo dañ lay dañ lay piétiner ah. man man je dis ce que ko defee ñu da nga pànk wala da nga bëri histoire alors que man euh, euh, dañuy gis ci yeneen coalition yenn jigéen yoo xamante ni jox nañ leen dayo bi mm-hmm. parce que boo jëlee coalition bi si mel ni Yewwi Askan Wi gis nañ ko si mel ni Maïmouna Bousso mm-hmm. ci campagne bi mu nekk au devant de la scène wale boppam donc mën nañu wax. non elle s'est imposée c'est tout. Mm-hmm. elle s'est imposée. la moo tax mënoo imposé. il faut ah man de yow li ma tax da nga ko déggul ma ne la man kenn du ma joggati. Mm-hmm. man kenn dama jokkoo Ousmane Sonko nga ma la mattate ma mattate la Ousmane Sonko <laughs> àndoon ngeen ci àndoon ngeen jot na. fu la moom am naa ko moom. Ousmane Sonko àndoon ngeen ci coalition jot na gis nañu mu dugg ci campagne bi même si euh, nekkul woon candidat mais gis nañ day drainer foule on peut dire que actuellement il a vent en poupe. Mm-hmm. yow nan nga gisee doxalinam Ousmane Sonko. bon je pense que il a la tête sur les épaules dafa dina jàpp ko xam na ni ñi ànd ak moom ñëpp intérêt tax ñu ànd ak moom la la preuve en est que Euh, il n'est pas devenu député et je pense que des fois quand on dit que gars yi dañoo juum i liste yi man je suis pas d'accord c'est ma vision à moi mm-hmm. sans sans mes responsables sans rien man en tant que Ndeye Sow je suis pas d'accord que benn Khalifa sal wala benn Déthié boo xam ne bi ñuy politique Ousmane Sonko juddoogul man juddoogul ma surtout monsieur Sall ñu ne que dafa dañoo juum ci seeni liste man boobu moom ça passe pas man boobu moom d' accord ma ko ba non pas duma leen ko baal parce que ça me concerne pas mais je suis pas d' du tout que dañoo juum loolu waxi dof la quoi daf mel ne nga war a togg ceebu jën war a tëmbal lii nga dem en madame mais baalu baalu àggali ci Ousmane Sonko. voilà voilà bon je me dis que Sonko il n'est pas il n'est pas bête il sait que les gens dañ koy utiliser. Euh, presque politiciens yi ànd ak moom ñëpp gëmuñu ko parce que tey munoo fekk ay nit ñoo xam ne ba nga juddoogul ba tey ñi ngi bëgg réew ñi ngi bëgg falu ñi ngi politique nga yaakaar ne ñooñu bu ñu ñëwee dañ lay xàllal yoon bi loolu c'est c'est te mettre le doigt dans l'œil quoi. mais souvent dañ koy ŋaañ ci ces sorties muy Euh, maanaam bokk c'est sa façon de faire de la politique il est violent waaw moo tax sax dëgg la violence bi keroog maa ngi koy wax ci benn plateau suñu doom yi mujjee juddu léegi ñëpp ay saaga da gis léegi xale bu ndaw def vidéo am saaga benn autorité saaga le président de la république te Sénégal c'est le c'est le phénomène c'est en vogue boo saagul président ñu ne faroo ak président boo saagul institution en tant que opposition ñu ne la da nga faral institution bi maintenant où va le monde où le Sénégal quoi c'est un Sénégal boo xam ne on se reconnaît plus euh, suñu kilifa diine yi kilifa aada yi nga xam ne bu tension daan am sax ñoom kenn ci ñoom ñemeetul wax journaliste bi ñemeetul wax la mu war a wax bu waxee pare su génnee man am naa plateau récemment bi ma génnee ay saaga laa fekkee ci kii bi <laughs> waaye daggal ma fu mu gën a baaxee parce que dama wax lu mel ni lu ma xalaat laa laa wax mais tant que tu n'es pas avec Sonko tu n'es pas de Yewwi say xarit yi nga am sax dafay dañ lay bàyyi. Ah. ak sa mouvement bi mën nañ jàpp la mun nga ànd ak Sonko. non euh, en politique li may wax chaque jour en politique il faut jamais le dire le mot jamais on se connaît on a eu à <laughs> cheminer en jot ci jot na. jot na euh, nekkoon nañ jot na après euh, non Sonko président la njëkk a def en 2019 après ñu génn def jot na on était très bien je les considère comme un frère ku mel ne Birame Souleye nit ku baax ku mel ne Maymouna Maymouna Dièye de la Padoa mère de Padoa voilà on a on est de bon terme c'est pas parce qu'on fait de la politique yaa ngi fii que maa ngi fii dañuy nekk ay noon te loolu laa fi gis léegi da ngay gis ko bañ président de la république da ngay gis ko bañ Ousmane Sonko da gis ko bañ bañeel bi pour lan la kii dafa bëgg lii kii dafa bëgg lii nañu jéem a teg ko ci yoon kii bu waree am am kii warta am mais y trop de injustice dans cette politique la et je comprends plus loolu fan la fee voilà. bon si euh, si loolu lay ñëwaatee si ngeen mm. wax il ne faut jamais dire jamais en politique. waaw noonu lañ jàngatee transhumance yi xew surtout si élection élection législative yi ndaxte nit ku bu nee si parti nga bokk sa fekk da nga adhéré si benn idéologie. Mm-hmm. parti boobu muy défendre te da ngay gis ne ki day ñëw fii deux semaines après nekk fële la moo waral loolu ah nag ngeen ko jàngatee. xam nga par exemple ñun li ñu dal ci ci buntu bi ah, Euh, te avant buntu bi dama démissionné j'étais dans Jotna dans la coalition na euh, bi Ousmane Sonko démissionné parce que Ousmane Sonko a démissionné dans la coalition Jotna. Euh, c'était vraiment bizarre aussi de sa part parce que nga taxawal sa yëf ba pare yow nga génnaat ci bàyyi fa ña ka ña fa ña ka ña nga xam ne yaag ñoo ma mm-hmm. àndoon tabax ko loolu bizarroon na trop mais bi local yi passé les locales on avec wallu ci local yi. Euh, la coalition wàllu bi ñu koy mm-hmm. taxawal ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci bokkoon euh, waaye jot na euh, avec les locales c'est ça c'est pas ça c'est pas bien passé quoi <laughs> le wàllu c'est le PDS quoi c'est eux dans eux ñoom i neen la moo tax su may dégg quoi intercoalition ay e daf may jàpp parce que xam naa ne PDS ñoom seen affaire nii lañ ko téye ñoom xajaluñ ci kenn dugaluñ ci kenn mm-hmm. parce que j'ai eu l'expérience pendant les locales jàpp nga ni mën nañu ànd ak Macky ah ñoom ñoom i neen la ah, ils se connaissent parce que quand tu vois la situation au au truc yéen ay journalistes ngeen même boo leen juddoo bërki am na loo xam ne di ngeen ko euh, dégg no parce que noppam ak borom euh, c'est c'est c'est le système qui est revenu dans dans dans l'Assemblée nationale ah le système c'était qui le système dont Ousmane Sonko parlait kan la Wade mm-hmm. Khalifa Sall voilà donc euh, ñoom ñoo fi ñoom ñoo fi ñëwaat je pense que par rapport à ça dama ko doon dama je réponds a sa question tu mm-hmm. sais dafa mel ne nga ci kër problème day am day am ay problème quand donc tu es dans une coalition tu peux ne pas te sentir wala nga nekk ci benn opposition boo xam ne daf lay leer ne ñi nekkuñu ci dëgg nga dem fi la arrangé pour man affaire bi ngëm-ngëm la rek sa ngëm-ngëmu bopp la des fois nit dina def loo xam ne parce que j'ai eu l'expérience dama gis ay nit yi def ay affaire euh, locales yi bi mu lekk législative bi mu jeexee sama benn xaritu sëriñ woon na ma ne ma soxna Ndeye ma ne ka mu ne ma su ma demul woon fii su élection bii passé dinañ ma tëj kaso ndax bor yi ma ci am bu ak lii lay pousser pour nga nga def benn affaire. des fois coalition yi dafa métti de ay maslaa yi rek moo fi nekk. <laughs> voilà donc te euh, gis nga bu liy passé législative yi ngeen di xam affaire coalition ci ngeen di comprendre. dinañ ci gën a dellu <laughs> donc man sama laaj day dem ci euh, sa avis par rapport ak euh, e t bi nga xamante ni rek dinañ ko teg d'ici quelque temps mu am nag opposant membre opposition yoo xamante ni d'accord uñ ci. yow tamit nga nekk rek ci opposition bi est-ce que mën nañoo xam lan moo nekk sa xalaat ci assemblée boobu. xam nga opposition bi li gën a graaw ci ñun mooy dañ naa la duñu bokk mais boo xëyee rek ñu ciy gis. def naa loolu comme ci élection locale législative <laughs> du def parrainage. te ña ngay dem di su inscrire suñuy suñuy suñuy comment suñu plénipotentiaire yi la xawma suñuy xawma lan duñu dem suñu du ñu dem te yéen ni ngeen koy waxee ci tele bi instant boobu keneen a ngay dem di lijjanti di déposer en fait il y a des yoo xam ne buñ la koy wax neen uhu rek parce que tey maire bi falu am ay conseillers wala yeneen conseillers yu dafa nekk c'est pas toi parce que il était dans la coalition Yewwi ou dans la coalition Baby ou dans la dans notre coalition que du dem foofu <laughs> tu n'as pas le droit de dire à cette personne là que du dem bon pour man balaa may mën a gëm ne ñoom demuñu euh, nañu egg ba ci cappaandaw gi mën na am aussi li ñu wax ñu def ko. mais gisee institution yooyu noonu. HCCT euh, HCCC e. par exemple euh, li ma gis pour man dañoo war a def comme li waa kii wax nuñ tudd société civile dañuy bëgg benn bilan te balaa may wax ñu dissoudre ko parce que je je faisais dans ma campagne. législative je sur des plateaux je demandais que ñu dissoudre ko. kon amuñu euh, jaay li may wax sama benn xarit ne <laughs> li may wax ne leen buñ di wax HTC wala ñuy wax CC parce que sénégalais xamul loolu sénégalais bi dafa xam fi Aminata Mbengue Ndiaye nekk ak fi Idrissa Seck nekk loolu boo ko waxee sénégalais bi dégg la mais boo ko bëggee ay tur moom xamul loolu sénégalais bi lay dégg bi nekk fu sori nee naa leen fi Aminata ngi Ndiaye nekk comme li société civile wax nañu nañu def euh, nu mu ko waxee sax ah nañ def bilan ñu xool ba xam parce que li leen fi li leen warloo woon mooy di dimbale di dimbale euh, salarié yi ñi ñuy fay di dimbale mairie yi di dimbale dimbale est-ce que loolu ñu leen santoon def nañ ko ak biñ ko defee nan lañ ko defee te bilan bi du ñoom nga koy laaj da koy laaj ñi nga xam ne ñooñu la ñu waroon a jëflanteel ñooñu bu ñu ñi ñu waroon jëflanteel bu nekkee nag li ñu wax parce que nit ñi dañ naan lekkukaayu xaalis la lii lii lii alors que y a kon yow comment tu ngay seetaan foofu ñu fay lekkee xaalis te tu n'as jamais dénoncé Mais quand il y a euh, campagne ou il y a, quand il y a élection, et là tu commences à dénoncer alors que tu étais bien là-bas, mm. bien dedans. C'est incohérent. C'est incohérent par exemple. dafa mel ne nawet bi <laughs> nawet bi ñu bëgg a wax affaire ndox mi alors que ñi ñi koy kaas ñoom en en des années en arrière ils étaient là. Mm. kon mburu kof ko non mburu foofu ko fëriñ <laughs> loolu les boulangeries lay wax par exemple tey euh, ñu opposition bi di wax muy man muy sama moro mhm. on fait que des plateaux on fait que des dañuy wax mais est que kenn ci ñun déplacé wu na dem fa su weesoo le président Bougane Gueye peut-être gis nga ko bien avant les trucs mi ngi def ay ay sa façon de faire mais tey est-ce que ñu ngay wax ñëpp gis nga kenn ku dem ci sinistré yooyu wala ñi dee la ñu dem jaale ji leen wala ñu fekk leen fa ak ceeb wala suukar wala mburu wala lii c'est bien pour nga toog ci plateau en 30 secondes waxtu bi jeex na ali waxtu bu ñu comprendre sa mouvement bi nga taxawal naa nekk parti politique da naa jël sa yoonu bopp ngir dugg bu baax yoonu bopp mënatul am même le président Macky Sall que ce soit yooyu on peut plus partir ensemble peut-être Euh, comme li ñuy reproché Ousmane je me disais que avec Pastef nit ñee wax rek mais il pouvait partir lui seul avec ces jeunes là dugal leen biir assemblée nationale ñu am beneen changement ñu am beneen rupture loolu mënoon na nekk mais fi ñu toll nii jamono ji amatul benn parti mouvement bu mën a même suñu récépissé bu génnoon on peut pas aller seul coalition coalition rek donc euh, <laughs> waxtu bi ñu joxoon dab nañu ah madame euh, Ndeye Leila madame euh, Ndeye Sow Leila. ñu lay remercier. Leila en fait c'est un surnom ah c'est un surnom euh, <laughs> sur les réseaux sociaux mais. je m'appelle Ndeye Sow. Ndeye Sow ah d'accord mais bon ñu ñu ci Leila bi a rafet voilà donc ñu ngi lay remercier bu baax ci sa présence. ak sa disponibilité xam naa dinañ dajawaat vraiment pour gën a yaatal. donc Sadio dama lay bàyyi nga tàggoo très rapidement. alors merci beaucoup Ndeye Sow nekk mm. présidente mouvement liggéeyal Sénégal merci euh, Fatou Aliou Cissé Noir merci aussi képp koo xam ne ñuy seetaan suñu Label TV nekk si xolu Sénégal di la jox rendez-vous Fatou suba si vendredi jàmm la mais comme euh, Dieu merci encore une fois suñu invité madame Ndeye Sow Leila di ko ñaanal ak mouvement bi mu taxawal yàlla may ko si lim si mhm. wuutu mbokk yi ñoo fi amoon mbégte loolu teew fi depuis huit heures ba tey donc ñu jox di daje ëllëg bu soobee suñu borom comme d'habitude avec la même équipe voilà merci Aliou merci Sadio merci euh, Ndeye Leila euh, bon Ndeye Sow Leila <laughs> ci euh, disponibilité bi j'espère que voilà débat bi intéressant woon na bu baax a baax pour ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy suñu téléspectateur ànd ak ñun depuis huit heures donc mu jiite rek mouvement boobu nga xam ne mooy liggéeyal Sénégal ñu xaaral ba xam lan la ñu nar a liggéeyal Sénégal durant <laughs> temps bi ñu fiy nekk donc dañ leen di jox dig daje demain incha allah ak yeneen invité yeneen thème ci suñu Label TV ci xolu Sénégal seen émission suñu matinale donc bonne journée restez connectés waa kaa bi ak waa suñu bës ñu ngi ñëw pour li nga xam ne rek moo des ci euh, journée bi mën ngeen am tamit label euh, rajo ci 99 point 6 euh, suñu label TV ci TNT canal 27 donc à demain incha allah portez très bien.